foo ko teg fu ma ko teg match bi ñaata la xam nga deux zéro li jaay foo teg loolu fu ma teg loolu dañuy am ndam par man li ma yëg sama sama yaram barki alxuraanu kar man sax moo nekkul maa équipe nationale lan ngay yëg sa sama yaram li gaay mbégte bu ah. ah. ah. ko yëg sama yaram. da tey coupe bi Sénégal te bu ñëwee yàlla na ko àll rek billaay walaay taal may rendre hommage sama bu baax fa mu tudd yàlla na ko yàlla xara àjjana. bu Sénégal bu Sénégal gagné nooy def. oh ndigaay ndigaay ndigaay yàlla Sénégal gagné waaye ndigaay ndigaay foog ma jàkkaaroo ak yéen yàlla Sénégal gagné. bu Sénégal gagné nooy def. ndigaay bu Sénégal gagné namatuma dara sama live. chers amis téléspectateurs tey di euh, vendredi 19 juillet 2019 euh, méngoog bés bi nga xamante ni la ñuy jouer finale euh, de la CAN 2019 fële ci Égypte mu war a am ci diggante euh, Sénégal ak Algérie dañu dugg jël quelques réactions des Sénégalais naka la ñuy préparer bés bi ak yan matukaay la ñu jël ci euh, final bi nga xamante ni mooy finalu euh, CAN 2019 bi nga xamante ni mu ngi war am ci stade international bu bu Caire ci diggante les lion de la Teranga ak ñi nga xamante ni ñooy Algérie. naka naka bés bi nan préparer final bi. ngi dund yaakaar rek xalaat Sénégal indi ñu Euh, en tant que sénégalais euh, en tant que euh, un fan du sport nan ngeen préparé li nga xamante ni mooy final bi. waaw ñu daal ñu si ginnaaw suñu équipe di ko supporté di ko ñaanal yàlla moo am ndam waaw parce que lu fi gëj am la Sénégal bu demee toog ba débat final bi nga xam ne 2002 la woon ba tey 2002 yàlla dimbali ñu débat kon nag dañ ñaan yàlla rek yàlla jox ñu ndam. salaamaaleykum mbokk mi maaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, tey di bés bi nga xamante ni ci la Sénégal di préparer final bi dox ci digganteem ak Caire préparation bi nan ngeen koy dundee. vraiment ñu ngi koy dundee yaakaar di am yaakaar bu baax a baax a baax ci sunu équipe nationale bi parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi ñaan te et puis tamit c'est la première fois tamit. ñu bëgg jël coupe parce que demoon nañ ci finaal ñàkk ko mais bii moom wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp ñu ngi ci def suñu xel bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan suñu borom yàlla may ñu ndam. naka ngeen tuddee préparation. non Sénégal day jël coupe déjà moom mooy forog xam nga rek coupe bi lañ xaar par nañ def lépp grand bi soo baax ok Sénégal day jël coupe bi mu doon message bu xaw a yomb pour man euh, ci yan baas nga teg ne Sénégal day jël coupe. non mais Sénégal moom ñun Algérie na quoi xam moo ko mën mais équipe bi la dóor euh, ngeen waat nga ne yaa ko man te yow prouvé ko dara ci. mais man gëm naa ne moo ko mën quoi xam naa ne bii tam bii baa moom dina baax allah. Euh, en tant que joueur nan nga dundee li nga xamante ni mooy préparation. waaw gars yi nañ ko moom di ñëpp Sénégal moom ñëpp tamit pare nañ ko supporter rafet bi comprends nga mas moom du mas li moom du mas révolution la rek. parce que ñoom ñoo ñu dóor ale. su dee répétition du baax de. encore répétition la parce que ñoom ñoo ñu dóor ale. ale boobu am na retour. répétition bi waaw loolu la. comme naa ale boobu am na retour. ñoom ñoo ñu dóor 1-0 dañuy fàtte 1-0 ñu xam ne carrément ñun mënuñu ko moo daw responsable moom rek. waaw comme comme ni ko Sénégal yëpp di préparé rek. ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani gën ci alhamdulilah yàlla may ñu victoire. oui ñu ngi sant yàlla bu baax. Euh, tey di euh, final bi dox ci diggante euh, final Coupe d'Afrique bi dox ci diggante Sénégal ak Algérie naka ngeen préparé li nga xamante ni mooy bés. waaw comme ni ñu doon préparé rek yeneen match yi xam nga mooy loolu quoi xam nga fexe xam nga yàlla def xam nga ñu gagné coupe bi indi ko fii nii Sénégal xam nga ñëpp feere ko soo xoolee bii passé nii xam nga li fi am rek xam nga joueurs yi war nañu mën a tax ñu góor góorgóorlu bu baax a baax xam nga yow xam xam ni dafa am loo xamante ne da leen di xaar fii tamit quoi kon ñun dañ leen sas quoi xam ñoom tamit dañuy sas kon ñoom nañ yëngal ci nañ yëngal ci suuf rek ñun ñu yëngal ci kaw quoi di leen xaar nag incha allah ram ndam bi ñëw fii incha allah. waaw préparation bi de dañu bëgg ndam nag waaw boobu wane gaynde nag ndax xol yi ñu laabee de doon benn rek coupe bi day ñëw ko quoi waaw. xol xol yu de pour ma. ak boobu doon gaynde gars ma def lépp lu ñu mën kuréel borom kuréel yi ñëpp jóg ñaan ndax tamit foofu ñu ñaan ñun ñëpp waaw mu lisee doon benn mën a ñëw euh, ça très longtemps Sénégal di xaar lu mel nii mhm. mais ñun ñi nga xam ni dañuy seetaan football mhm. on s'y préparé parce que gis nañ équipe bi mi ngi doon préparé wu ñu koy togg ndànk ndànk ndànk mu demoon ba équipe bi naqaree defar euh, naqaree manœuvrer mhm. boo xoolee coupe du monde bi bi ñu éliminé wu ci ay fait de jeu la coupe d'Afrique bi di passé aussi ci benn euh, kii benn fait de soleil aussi waaw kenn équipe naqaree gagné daal mhm. on savait que l'équipe est devenue très solide mhm. ah am benn base ñuy vraiment une base défensive boo xam ne l'équipe encaisse rarement des buts mhm. et parvient toujours à marquer même bu doon benn but la on savait que compétition bi ñu kii su mal di demee bay wax le Sénégal sera favori au mondial 2022 on sait que Sénégal moom commencé am équipe xanaa kontaan mais xam na ne j'espère bien que yàlla duñu duñu metti Ousmane Tanor Dieng mi dem xanaa kay am na ñu lu ñu metti ba pare xanaa yàlla bu ñu tegaat beneen mettit ce serait bien que dinañu dem te ren ji suñu bés la dañuy dem dara du ñu téye bu soobee yàlla yonent bi dinañu dem. ñu lay bu baax. ah delloo ziar. Euh, ngeen di préparé kan bi nan ngeen dundee préparation. waaw ah, waaw kan bi waaw du ni nga dundee na instant instant yii nii zéro stress parce que gëm nañ gars yi xam nga gëm nañ ni que dinañ indi coupe bi waaw am nañ yaakaar ci ñoom daal. Algérie nekk équipe boo xamante ni dóor nañu benn match déjà am na opportunité bu mu am suñu kaw lool yéen ak ban jàngat nga ci am. ah actuellement nii Algérie dóor nañu xam nañ faay yu ñu defoon premier match deuxième match dañuy. bañ xam nga dañuy réparé waat faa yu defoon noonu rek fàttali tur yi gën a pousse si kanam rek attaquant yi tam lu ñu doon raté match bi la paase ñu bañ ko raté ndaxte attaque défense Algérie mënul téye suñu suñu suñu attaque bi bu ñu leen jaabee moom si yoon bal bu ñaan am si kii bi euh, surface bi war nañ ko mën a teg mbay ñaar assuré lépp saa yoo ñëw rek. bon bés bu ñu koy préparé comme bés boobu mais bu ñu see extraordinaire bi moom c' est bés boo xam ne c' est spécial la dem final yombul Camara nga dem final yombul te c' est la première fois ñu dem final deuxième fois ñu dem final mais bii c' est je pense que ce sera la bonne sincèrement nag bii nag ñun ñëpp la ñu mobilisé wu ñun ñëpp quartier bi yëpp mobilisé wu ànd suñu ñooy pour jël final bi sincèrement dañ ko mu jël. Euh, équipe bi di Algérie nekk équipe boo xamante ni aussi euh, def na ay preuve am euh, ci histoire football donc mu doon équipe boo xamante ni déjà am na ay opportunité d'avance ci sa kaw parce que match bi ñu wees moom moo nekkoon ci sa kaw loolu ban jàngat nga ci am tey ngeen war a dajewaat. bon équipe Algérie moom duñ ko duñ ko wér duñ kenn ñu wérante équipe Algérie xam nañ équipe bu retour j'espère allez boobu c'est un retour bon jeu mais dañuy fayu dóor fayu wax. góorgóorlu rek am fit wóolu gëm seen bopp incha allah lépp dina baax incha allah. nga jaajëfal. yaa kay jërëjëf. kontaan rek ànd ak kontaan te ak mbég ko yàlla yal na ko yàlla def. équipe bi ngay taseel moo la dóoroon ci eh, match bi seen a euh, gën lañ leen da ciy baax rek defet boobu daf daf ci baax day tax bi joueur yi gën a am jom Euh, formé wu waat bu baax jëlee nañ ci expérience boo xam ne war nañ leen mën a daan jël coupe bi incha allah yàlla mën na ko yal ko yàlla defal. oui pression bu garaaw. pression bi manque de confiance la wala. non du manque de confiance mais doy na waar quoi. yàlla may ndam rek loolu la ñuy ñaan quoi. gis-gis nga am ci rencontre gis-gis moom amu ci si saaxal dañuy gagné quoi xaw ma ndax série lay nekk xaw ma si biir match bi mais dañuy gagné waaw am naa confiance mais am am naa tuuti pression. lan moo waral pression boobu. pression mooy joueurs yi des fois dañuy xaw bàyyi quoi waaw. y' trop de perte de balle. waaw y' a trop de perte de balle. bëri na trop ak ak. Euh, Koulibaly euh, est absent aujourd'hui lan la def ci yow. affaire bu garaaw loolu moom tiital nag sincèrement parler pour dire vrai tiital na ma trop trop trop sax mais di ñaan yàlla rek. si jëmm Yeesu Krista. Mhm. yàlla nañ jël final bi quoi. Ah, am kontaan rek waaye di daal mbéte di ñaan Sénégal yal na la yàlla jàppale coupe bi ñëw. ñu mbégte waay ñu dund ko daal supporter bi cax rek ah, am kontante rek waay ñu dund daal mbégte di ñaan Sénégal yal na la yàlla jàppale coupe bi ñëw ñu mbégte waay ñu dund ko daal supporter bi cax rek. neen ju fii ci Grand Yoff Cité Millionnaire ah, xanaa di ñaan yàlla rek yàlla jàpp lañu dimbali ñu ba Sénégal ànd ànd coupe ñëw ñu teeru leen Blaise Diagne ànd ak ñoom ba buntu pale incha xanaa bëgg koo jot rek yàlla na ko yàlla yonent bi defal moo xam ne Sénégal yëpp ko bëgg yàlla na ko yàlla defal daal kenn ku nekk daal na nga ñaan rek bañ cee boole dara te ñaan rek yàlla defal na ko yàlla na ko yàlla defal daal waaw.